ñu ñëwoon tey de de ji altine e, pour déposer ci e, suñu déclaration pour suñu rassemblement bi ñu war a def géejawaay ci esplanade du stade Amadou Barry e, le 12 juillet bii di ñëw incha allahu rabbi loolu moo waraloon suñu ñëw au niveau de la préfecture pour déposer notre déclaration. dafa am amalgame boo xamante ni dafa am ici au niveau de géejawaay parce que le principal concerné dafa dëkk géejawaay le principal concerné dañ ne mooy maire géejawaay kon donc day yoon bu dee dafa amoon ñoo xam dañoo jóg ne géejawaay ñoo bañ pour Alioune Sall bañ a euh, bañ a bañ a bañ a démissionné ci lenn loolu du géejawaay dañoo bëgg woo waa géejawaay woo population bi d'abord pour informer leen leeral leen seen maire lan la def leeral leen seen maire ci lan lañ koy tuumaat leeral leen seen maire ci ban niveau la toll toll ci tuuma tey ci Sénégal waaye leeral adduna aussi tamit ne du waa du waa géejawaay ñoo ñëwoon keroog juróom fukki nit yaakaar naa fukki sax ay journaliste lañ 40 personnes bañ di bañ pour Aliou Sall daal di démissionner loolu du waa Géejawaay dañoo bëgg a ñoo ñan ñooy ñan ñoo ànd ak bi. waaw li ñu bëgg rek tout simplement ci déclaration bi ñu def mooy rassembler wu pour li ñëpp bëgg rek mbir mi leer ndax. mooy li am ci pétrole bi ak ci gaz bi ñu jam ko baaraamu tuuma jamoon nañ fi baaraamu tuuma maire de Dakar Aliou Khalifa Sall biñ ko jamee baaraamu tuuma sax dañ koo déjjati mairie mairie Dakar xaaruñu sax dañ koo dindi immunité parlementaire am ci député waa kii moom moom mooy kan ba li ñu tuumaal kay moom ñu tuumaal ko moom moom duñ ko jëlee ci mairie Guédiawaye moom duñ ko teg benn sanction boo xamante ni du wuy ci justice moo waral tey suñu déclaration bi ñu woo population Guédiawaye woo àdduna wax leen ne àjjuma àdduna moo fi daje aar li ñu bokk moo fi daje le 12 ci kanamu stade bu Amadou Barry président Macky Sall moom day làq doom di dóor doom bi mu waxee ne am na ay dossiers noo xamante ni maa ci teg sama conc ba tey la ñu bëri war a xam ni moom day làq doom di dóor doom làq doom nag di dóor doom weesuwul ñi ñu fi tuumaal ci ci passé muy muy Khalifa Sall muy Karim Wade dañ leen a teg ci yoon ak ñeneen ak ñeneen waaye kii rakam la peut-être dañoo bokk ndey ak baay